jërë ngeen jëf mbéy gi naroon a doon ab doom démb yéenekaay yu bari xëy nañu di ci wax yëral xët mu njëkk Vox Populi mbéy ab dëkk la bu nekk ci commune bu Bambilor coowal suuf moo ko jaxase démb ne dafa am ñaar fukki hectares yi suuf ak ñaar yi ñu fa jox benn waaye bu ñu naan sëriñ son yi bu sekk loolee moo waral jàppante ne dañoo xëy gis fay ouvrier yu ñëw di def terrassement ànd ak sandarma yu deskos yi askan wa ne du ca dal dalante fa ak alkaati ba ñu bari jële cee gaañu-gaañu am na ñu bari ñu ñu fa loxo ñaar fukki hectares yi ak ñaar yi ñu dagg jox ko lom de affaire bii di sëriñ son bu sekk journal bi nee nañu moom la ndaw yi dëkk ba ne du am bañuñu ci dara dee wuute ko dafa benn privé bu bëgg a lu toll ci ñaar fukki hectares yi suuf ak ñaar ci ñi ne ñoo suuf si ne loola du fi am ba taxoon ñu wàcc ci mbedd yi doon manifester Aïssata Tall Sall mi wuutu Ismaïla Madior Fall ca bopp ministère de la justice mi ngi ci xët mu njëkk la Sénégal journal bi dañuy wax ne ca ndajam passation de service bi woon démb moom maître Aïssata Tall Sall ba mu jëlee lengee ci Ismaïla Madior Fall leeral na fa ñeenti yoon yi mu fas yéene xutti jaar ci ngir doxal justice bi ñu ko dénk source waa nañu am ay sata mu fees dell ak énergie moom la gis démb nee ngir fexe ba di leer ci wàllu justice bi tax na dina tànn kenn def ko porte parole ministre de la justice ndax doxinu justice ak liggéeyam war a tuta doon kumpa ci askan wi longu détention yi askan wu bari di jooy ci réew mi maître Aïssata Tall Sall ministre de la justice bu bees bi yàgg fa te xamuñu fan la ñu féete mën a xam lan moo leen fa bàyyi ñu bàyyi ko moom maître te dem seeti honorable député Ayib Daffé mooy mandataire bu Ousmane Sonko mu ngi ci xët mu njëkk journal bés bi le jour yéenekaay bi dañu xamal ne ba mu demee démb ca direction générale des élections bëggoon a jëlali Ousmane Sonko ay fiches de parrainage am ba mu demee jotu ca jotu ta sax dugg ca direction générale des élections policiers yi ñoo ko téye ci buntu ba ne ko duñu recevoir tey wax ne Ayib Daffé ak huissier mu àndaloon di maître Wende Dieng direction générale des élections fa leen bloqué moom point na ni ministère de ministre ba di maître Sidiki Kaba moo tëj bunti Ousmane Sonko ko ayib daafe di ñu wax ci liste njëkk ba dolli ñu ci ne mbir yi préfet bu Ziguinchor moo ci des moo war a saisir ministre de ngir ñu dellowaat Ousmane Sonko ci liste électorale yi le témoigné nañu cay nguuru Macky Sall gi daal mooy nguur goo xam ne dogalub justice nu mu mën di toll lu mu rëy rëy ba lu mu tuuti tuuti bu leen duñu ko jëfe Walf Quotidien nañu Ousmane Sonko mi ñu bañal fils parrainage am ñi ko def dañu xëttu yoon defuñu li bi wax ñu wax ci Sud Quotidien mi xëy di ñu wax ne ba léegi nit munta kitaab ne Ousmane Sonko dina bokk ci élection présidentielle yu njiital réew mi njiit ba woon di Léopold Sédar Senghor bagaasam yi ñu bëgg a jaay ca France bëgg ko def vente aux enchères enquête dina kay xëy na di ko naqarlu ba di ñu wax ne rafetlu ñu ginnaaw Senghor lise ko nañu ndax vente aux enchères ga sax dina am li tax yéen kay bi nee nañu mooy président Macky Sall àndul ci vente aux enchères gi nee na ministre de la culture Aliou Sow na ànd ak ambassadeur u Sénégal ba ca France ñu dem xool yi bagaas yi Léopold Sédar Senghor a def vente lu ñuy enchère